commission bi nga xam ni mooy saytu wàllu weer wi te nekk ci biir coordination des musulmans du Sénégal daje nañu ni ñu daan dajee ci ngoonuk tey jii muy bisub talaata tolloog ñaar fukki fan juróom ci weeru sha'ban muy baraxlu 1444 mu dëppook le mars doon saytu lu jëm ci weer wi nga xam ni moom lañuy tertu muy weeru koor gannaaw bañ ko gëstoo ci biir réew mi di Sénégal gëstu ko tam ci biti réew yëg nañ ni weer wi feeñut kon ci loolu suba ci àllarba ji tolloog 22 mars 2023 mooy mottuli weeru shaaban bi mu nekk fanweereelu fan gannaaw ëllëg muy alxames la 23 mars 2023 mooy bis bi xam ni la commission d'observation du croissant lunaire COCL de la coordination des musulmans du Sénégal CMS s'est réunie ce mardi 21 mars 2023 correspondant au 29 Sha'ban 1444 de l'Égypte à son siège pour scruter le croissant lunaire. Après avoir écrit les informations en provenance de ses correspondants nationaux et internationaux, la commission déclare que le croissant lunaire n'a pas été aperçu. Par conséquent, demain, mercredi 22 mars 2023, complétera le mois de Sha'ban. Et après-demain, jeudi 23 mars 2023, sera le premier du mois lunaire, Ramadan 1444. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos bonnes œuvres. Wassalamu alaikum wa